tey nag bu ngeen gisee ñi ñu jàkkaar lool ñaar ñoo xam ne defe naa tey ci làmb ah ñu ngi ci di ci def seen partition si côté bi ñu nekkee ñu ay amateur bureau des amateurs bu ñu ko déggee nag maanaam ay amateur fa dajee di ay jeunes donte sax am na ku mel ni góor a soog des fois mu mu di leen tooñ naan leen xanaa léegi war ngeen aase parce que mooy lool waaye daal les jeunes amateurs la bu ñu nag mooy góorandooy ak ña mu àndal ñu toog ak moom tey ak Mor fas waxtaan ak ñoom parce que fan yee passé def nañ fi assemblée générale ministre defe na leen fi CNC tamit noonu yooyu nag dañ ci bëgg am ci ñoom ay leeral tey ak itam lambi huis clos ji ñuy coow fan yi ci dëkk bi ñoom nuñ ko gisa en tant que ay amateur mais ma jëkkee ci Mor balaa may dem si prési góora Mor borom pa borom Njaay production Mor maa lay bëggee waaw Babacar ñu ngi lay nuyu bu baax waa di nuyu sit site bi Equivox TV waa di nuyu tamit euh, monde entier di nuyu tamit amateuru làmb yëpp particulièrement waa jeune amateur waa di nuyu amateurs yi fi nekk yëpp si làmb di nuyu tamit euh, promoteurs yi di nuyu monde làmb yëpp waa di rafetlu bu baax tamit seen teewaay tey daal. am na solo Mor euh, Mor su ma ñëwee ci yow fi may ñëw ak yow mooy réunion bi ngeen doon tenir la fois passée jàmm gën. parce que da fa amoon benn réunion defe naa pour bureau wala pour lan la woon wala daje la woon nii rek wala. waaw Babacar xam nga jeune moom tàmm na des fois chaque trois mois wala deux mois ñu réunir suñu biir defaraat def ay réglages xool tolluwaayu association bi ah fan la nekkoon ak fan la war a dem moo waral daje boobu ah des fois nag dangeen nit ñi daan nit ñi foog ne assemblée générale mais nekkul woon assemblée générale pour régl ay réglages yu gars yi doon defaat la ay changements yu gars waroon defaat la. ak yoo xam ne dañ ko waroon présenter membre jeune amateur yëpp muy benn d'abord suñu page Facebook beneen bi muy page Instagram jeune amateur waa yooyu dañ ko waroon présenter waale gars yi. jeune amateur tey bu ñu leen laajee seen ambition ci Sénégal wala ci làmb lan la. waaw ambition bi moom euh, Babacar des fois sax mun na nekk loo xam ne du nekk du bokk ak làmb parce que vision jeune amateur dépassé na sax des fois cadre xëy na si làmb la nekk. xëy na ñun ñëpp ay amateuru làmb lañ réunir boole suñ doole ak suñ xam-xam suñ xalaat waaw mais nag ñu ngi si ay projet yoo xam ne bokkul ak sax ay làmb parce que gis nañ jeune amateur comme président bi ni mu koy faral di waxee amul chômeur mais ëllëg bëgg nañ ay copte nit ñoo xam ne sax amaana mun nañ bañ a jàpp si dara ñu former leen base bi naka lañ leen di former naka la ñuy def ba jeune amateur dèjà gis nañ ñoo xam ne ay ay société lañ yor ku si mel ne ñoom Modou Baye Fall ñoom Gora Ndoye président ku si mel bëri na ay gens ay gars yoo xam ne ñu ngi si jeune amateur mun nañ ne entreprise lañ yor. ndax dañuy embaucher ay nit di leen liggéeyloo waaw bëgg nañ créer waat leneen lu dul loolu moo tax des fois booloo bi di waxtaan bi di ku nekk di génne sa xalaat say idée waaw pour lancer ko affaire yi mën a avancer quoi parce que nu mu yem tamit si dajaloo réunion waxtaan yem foofu non dañu bëgg projet yi dépassé na loolu quoi waaw. projet yi dépassé na loolu maanaam kon projet yi mën nga ma cee tuddal ay projet yoo xam ne actuellement yéen nga ci di ci dox wala. waaw projet xam nga Balla Diop euh, yàgg na ko wax cité des pour pourquoi pas parce que adduna lépp ambition la ak vision amaana suñu tegee suñuy projet yooyu yëpp dasee bokk si naka la ñuy def pour ëllëg euh, jeune amateur yëpp bokk benn côté bi ñu dëkkee yooyu yëpp dafa bokk suñuy projet euh, ñoom ñoo mën a wax ci loolu mais kon yow xanaa bu ñu la laajee xaalis bi comme yaa ngi ca compte ba te yaay trésorier bi ñaata million fa ne waaw mbiru xaalis nag dafa sensible comme le ministre des sports nu mu nu ko waxee parce que tamit ñun présenté nañ ko sunu compte bancaire association des jeunes amateurs mu rafetlu ko waaw ah, ba pare xamal nañu bu yéen yéene avenir u làmb ëllëg Matar Ba ñu ngi koy nuyu bu baax mu am benn vision bu sore tamit si jeune amateur am si yéene ba pare ne si laa bokk ba pare am yéene jàppale jeune amateur am yéene tamit taj dugal si alal yooyu yëpp ministre rassuré nañu ko waaw ah, d' abord xam nga mbiru xaaj dafa xaw a sensible mun ne ne temps moo ne si compte bi ëllëg leneen am moo tax duñ si bëgg di wax mais quelque quel que soit l'ici euh, réunion bi mujj jàmm gën bépp membre bi nekkoon jeune amateur toogoon fa ñoom xam nañ versement yi ñu def si compte jeune amateur xam nañ tamit somme bi fa nekk amaana chaque trois mois suñu réunir genre réunion yi la ñuy xamal sax membre yi lan moone si compte bi quoi waa di wax tamit compte bi ubbi nañ ko xaw na diire tuuti di wax compte bu assuré la boo xam ne à part euh, président bi moo mun a def signature am ak le trésorier pour xaalis génn fa waaw mais bépp membre bu nekk si jeune amateur mën ngaa verser mooy wan ne tamit dafa ubbi wuñu compte rek pour ubbi ko waaw ubbi wuñ ko tamit si compte personnel saabu dina mbiru association la moo tax lépp dañuy bëgg muy leer versement bu ñu mën a def si compte bi tamit dinañ ko photo envoyé ko si bureau jeune amateur waa bureau bi saytu ko envoyé ko le commissaire au compte muy Modou Baye Fall moom it mu saytu ko ça veut na lépp day am transparence parce que alalu mbooloo moom daa laaj di leeral saa su ne quoi te tant que ñu ngi si voie boobu noonu affaire day avancé quoi. maa ngi lay ziar président Gora. waaw lay dolli ziar di ziar amateuru làmb yi vraiment aussi tamit euh, di ziar ñëpp di nuyu waa kër gi fii nga ñu fekk nii ci Medina di nuyu suñu maman di nuyu ñëpp vraiment di nuyu axlu làmb yëpp axlu làmb bu ñu ko waxee jiital nañ ci ministre des sports nga xam ne mooy Matar ba suñu kilifa. waa di jiital aussi tamit nuyoo bi ki nga xam ne mooy Bira seen président CNG bi di nuyu lu làmb yëpp waa rawatina nag waa association des jeunes amateurs waa di nuyu ñëpp vraiment. Mhm. yow en tant que président euh, su ma la laajee président bi ñu la fale ak léegi si ñaata at la toll wala ñaata weer et puis sa mandat ñaata ñaata temps lay diire. waaw mandat bi Babacar loolu ba ma ci laajee naa ci sawar parce que mandat bi yaakaar naa Idaly moo fi nekkoon comme président. bi mu démissionné ne léegi promoteur la mënatul nekk président ci lañ ma jox intérim bi ma continué ko mais xam naa ni daal yaakaar naa ci li ma jàpp trois ans lañ ko faloon kon jàpp naa ni man toogagum naa lu mu bon bon un an parce que kooru daawaati na ci loolu mhm. Mhm. jàpp trois ans lañ ma fal mhm. jeune amateur buñ ko waxee ay jeune ngeen def sa góor a leen di tooñ ne ci yéen am na léegi ay pas ñu âgé euh, taxawaay bi ci biir làmb la lan la maanaam ban façon taxawaay la. waaw taxawaay bi Babacar euh, mooy taxawaay comme ñëpp rek parce que ñu lay amateur lañ yàgg ci làmb di dagg suñu billet chaque jour chaque fois di ñëw di seetaan ci làmb taxawaay bi du lenn lu dul intérêt amateur rek parce que yàlla boole nañu ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk bokkoo ak sa morom mbër ñun ñëpp ku ci nekk am nga koy supporter mais léegi dem nañ ba mënatoo xàmmee mbëru Abdou Salam ak mbëru moor wala mbëru Goro tey jii nii ñun ñëpp benn lañu. te loolu li ko waral mooy tribune bi la ñuy daje di kaf di foo di ree chaque dimanche chaque samedi ñu dem ba bokk kuréel kuréel bi li ko tax aussi du lenn lu dul intérêt amateur parce que dañu gis ne amoon na ay kuréel yu fi nekkoon mais seen intérêt bopp lañ gën a jiital ko intérêt amateur ñu dem nag ba créer suñu association gis ne tamit vraiment boobu léegi ñu ngi doxal ñu ngi def ay ñu ngi anticiper ci ñi nga xamante ni tey ñu ngi nekk ay malades yu feebar ñu ngi tamit jàppalante suñu biir képp ku xew la ñu ñëw assister muy bànneex muy naxar te àdduna loolu moo fi nekk vraiment mu wane ni tamit mbooloo rek mooy doole mais depuis que daal ñu formé association ba léegi gisuñu si dara lu ñuy rëcc vraiment ñu ngi avancé quoi. am na solo dinaa laaj tamit en tant que parce que ay kuréel làmb bëri na ay kuréel allah kuréel yi bëri na fi yéen itam ngeen kuréel kuréelu làmb yi fi nekk tey yi ngeen fi fekk ak yi leen fi fekk yan yan relation ngeen am ak ñoom. waaw couleur euh, lamb yi couleur euh, lamb yi fi nekk kuréelu lamb yi fi nekk ak euh, association yi amuñoo ak ñoom lenn dul jàmm ah. waaw parce que suñu ay papa lañ fi fekk ak suñu ay ndiyaay jox nañ ñëpp respect mais nag ñun moom ñu ngi suñu ruq di liggéey suñ liggéey amuñoo kenn aussi problème ndax li ñuy wax rek séntu asamaan jarul buuxante làmb yaatu na ku ci nekk mën nga ci jël sa wàll te doo yàqal sa morom waaw amuñoo kenn problème mais daal ñu ngi liggéey nekk suñu ay projet ak lu jëmale làmb kanam ci loolu lañ nekk di ci dox. Mhm. Euh, loolu am na solo macha allah tey yow en tant que président. gis nañ ne fan yi passé ministre de finance recevoir na leen fii euh, ñu jógewaat fi CNC recevoir recevoir leen fi loolu lan moo fa tukkee ci ay xibaar wala lan ngeen fa mën a lu ngeen fa jëlee loo xam ne man ngeen ko teg ci loxo yi ñi nga xam ne tey ñu ngi leen di suivre ak waa làmb waaw Babacar loolu di boo ma ci laaj naa ci sawar a tontu parce que yaakaar naa CNG du ñëpp lay woo ndax association bi lii wane ni association la bu ñu reconnaître mooy dañu ay këyit association la bu valable boo xam ni fu association di taxaw mën nañ fa taxaw vraiment bi ñu woowee aussi tamit di laaj suñu xalaat ci làmb ji ñu joxe suñu xalaat keroog bi may dem yaakaar naa maak moor ñoo ànd ak Modou Faye Roubé ak ki nga xamante ni yaakaar naa mooy Iliman bu Seras bi ñu fa demee aussi tamit dañ fa taxawal suñu association ndax barina na association yi ñu fa fekk wax nañ leen suñu ay doleance fekk ñu ñu doon laaj par rapport ak stade bi ñu tëj léegi ak ouverture saison bi ci lan lañ d'accord ñu ibi stade bi ci huis clos wala ñu xaar ba feebar bi jeex ñu mën a ibbi stade bi jox nañ leen aussi tamit suñu xalaat ndax ñun xalaat bi ñuy joxe toujours xalaatu mbooloo lay doon ndax association lañ jiite du ñu wax pour suñu bakkan du wax pour leen xamal nañ leen di daal amateurs yi namm nañu làmb promoteurs yi aussi tamit daaw ba ñu ngi jël seen ay millions jox ay mbër toog di xaar mbër yi jël avance daaw ba ren sonn nañu bëgg nañu bëre pourquoi pas ñu ibbi arène bi jël les mesures barrières kuy dugg ñu takk nga takk sa masque ñu jox la gel nga laal benn chaise bu nit toog ñu beneen bi beneen bi nit toog mu nekk loo xam dañ koy organiser du am pëccëxoo bu ko defee ñu mën pare yenn lamb yi parce que daaw ba ren tamit mbër yor ko avance bëriwul neexul promoteurs yi aussi dépasse seen ay millions mënoon ko def feneen toog ci xaar métti na waaw loolu daal lañ fa joxe comme xalaat waaw moom la ñuy wax euh, birase léegi huis clos bi gars yi wax ba am ñoo xam ne validé nañ ko ne huis maanaam kenn bañ a ñëw seetaan suñu tëgg lamb yéen ànd ngeen ci en tant que amateur waaw ñu ànd lamb ji waxuma ubbi bi de ubbi bi moom ne nañ dina am mais huis clos lay doon kenn du ko seetaan si ma ne ci lu ngeen ànd ànd ngeen ci huis clos wala àndu ngeen ci huis clos euh, góor a huis clos ñun àndu ngi si parce que ñun ay amateur lañ ñun bu ñu sañoon chaque jour bu làmb tëggee dañuy dem mais nag état la ñuy ñoom ñan la ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo yor dëkk bi nga xam ne ndogal bu mujj bi ci ñoom lay joge ndax euh, bul fàtte ne bërki dem rek ministre bi recevoir nañu bureau ak acteuru làmb yu bari foofu aussi li ñu jot a wax ak ñun bokk na ci ñu ngi concerté ñu ngi def ñu ngi concerté monde de la lutte bi yëpp di waxtaan ak ñoom pour jéem a xool nu ñuy fexe ba juboo ci kaddu moo tax joxaat nañu beneen rendez-vous peut-être ci biir semaine bi dinañ dajawaat ak ministre bi moo tax keroog li fa jógee mënuñu si génnee dara ndax comme waxu mbooloo la te kilifa moo ñuy woo te ñu ngi tënk di waxtaan pareeguñu peut-être moom ak fii ak le 5 bi nga xam ne ci la war a rencontrer président bi du ñàkk foofu la décision finale bi di jógee. waaw Aziz peut-être bu waxee loolu moom xëj na peut-être dafa yaakaar ni ak sponsoram war na ko mën a apporter dara ci làmb Balla mais foofu aussi tamit mën nañ ci ànd ak moom ci benn côté parce que moom dafa yor société am di liggéey lancé maanaam produit am peut-être da koy jaral loolu ndax ku xam Balla gay xam ni muy jaayee làmb ak làmbam ni muy doonee événement képp ku fa ñëw indi fa sa sponsor doo ko mais boo xoolee tamit ne du du asi du Balla gay rek moo ne ci làmb ji mbër yi nga xamante ni dañoo am yeneen combat ak yeneen promoteurs yi peut-être bu ñuy wax ñu waxaale ñëpp quoi parce que tamit benn combat boobu kese aussi tamit nekku fi parce que gis nañ suñu frère ci muy Baba Diaw moom moo sësoon rëkk ci war ci waroon tëgg dernier jour avant feebar bi di ñëw dernier moment def na dépense am yëpp mu ngi toog di xaar depuis boobu kooku aussi ñu ngi ñaan promoteur nu mu tëddati état bi ñu jàppale ko parce que xale la mënoon jël ay minimum def ko ci leneen mu jël ko investir ko ci làmb depuis daaw mu ngi toog te terewul découragé wul mu ngi monté waat ay combat kon kooku c'est à encourager yeneen promoteur tamit di nekk suuf ñu jàppale leen ñu yéeg parce que làmb dafa metti nga jël sa ay millions dépensé ko depuis daaw ba reen nga toog di xaar xam nga ñu bëgg a ñëw jukki combat yi mag yi fi des rek bàyyi yu ndaw yi ñun loolu ñun amateurs yi ànduñu si kon su ma la déggee sa dégg-dégg dafa mel ni kon Aziz xanaa da nga jàpp ne moom intérêt mbërëm lay waxee wala waaw Aziz moom ku ko xam-xam kook Balla Gaye waaw ñun Aziz moom Balla lañ ko xamee peut-être moom mbërëm bëre amaat beneen combat peut-être moom moo koy gën a arrangé mais nag moom ku ko xam-xam ko ci social ku ko xam-xam it xam ko ci làmb waaw xam naa ne daal loolu mu defal Gaston su ko jàppalee yeneen promoteur xarit tamit te xam naa ne ñoom ñëpp ay frère lañ bu leen ko jàppalee ci mel ni Dieye production ku ci mel ni Fallou Ndiaye ku ci mel ni Assane ku ci mel ni ñoom Idaali ku jàll ku ci mel ni tey jii nii ñoom Baba jaw jàpp Vox Arena waaw parce que yéen it ñu ngi leen di encouragé gis nañ combat yi mag yi ngeen taxawal vraiment mu nekk ay combat amateur jàppale promoteur yëpp daal waaw bu ko defee daal jàpp naa ni affaire yi dina gën a dox daal dañuy ñaan daal làmb ji yàlla yóbbuñu si ak jàmm mais li may ñaan daal surtout mooy amateur yëpp kenn bañ ko rate ñu ñëpp yàlla defal ñu xéewal ñu am lu ñu daggee biyee ñëw seetaan làmb ji góor kontaan naa ci yow. maa gën a kontaan ci di nuyu aussi sama frère Abdou Salam di kontaan ci moom aussi tamit di kontaan tamit ci ñaar ñoo xamante ni faaw nga mayoo Babacar ma gërëm leen muy ko ci mel ni dooro Gueye Doro Gueye chéri Clara nekk nit ku baax koo xamante ni dafa defal suñu frère muy Jules bale Junior loo xamante ni depuis lors aw ma chance pour gërëm ko mu nekk nit ku baax defal ko teraanga ne bëggul kenn wax ko mais il faut ñu wax ko parce que suñu frère bi mu tolloo diggante métti na mais bi mu génnee àdduna aussi gis nañ ku mel ni moom ak ku mel ni Waal Seck taxaw ci taxawaay bu rafet waaw ak suñu papa Demba Ka bu EDK awel ñooñu moom dañ leen di beral nuyoo di leen sant di la gërëm ak Keba Kanté vraiment ñooñu nekk ay nit ñu baax ñoo xamante ni Sénégal loolu soxla gis nañ aussi ba démb rek def naa ko ci jibi ama waaw yóbbu fa vraiment def fa bu noble Aziz Ndiaye aussi suñu frère ñu ngi koy gërëm ndax vraiment li ñu def Sénégal loolu soxla bu nit ñi soxlaa nañ leen taxaw jàppale leen parce que àdduna amul solo te nit ki amul lu dul ki ko ki ko mën a taxaw te àdduna dafa gudd tànk waaw Wally aussi tamit vraiment Faramareen bi defati na li mu daan def vraiment waa Pikine aussi tamit war a bàyyi xel ci moom parce que gis nañ saa bu ñu soxlaa rek waa Pikine li may wax nii dama bëgg gars yi bàyyi ci xel saa bu Pikine soxlaa bu ñu geesoo dañu koy gis dañuy gis mu taxaw def acte Wally Seck te loolu dafa nekk lu am solo gis nga gox boo ci dëkkee da ngay bokk ci ci ñi ñiy participer ci gox bi mais mënoo dëkk ci gox bi di mbuboo gox bi saa soxlaa dox bi génn représenté leen ba pare te la soxlaa duñ la gis loolu baaxul loolu nag li may wax nag dégg la laaj Wally Seck Pikine ñoo ngi koy gërëm gis nañ li mu def ci kaaw Jules Balde Junior gis nañ aussi démb li mu defaat ci Djiby Ama saa bu ñu ko wooyee day génn tëjalul kenn portam vraiment loolu nekk tamit geste boo xam ne ñun waa Pikine dañ koy saluer parce que tamit du moom kese moo fa nekk comme musicien mais saa bu ñu soxlaa rek day génn loolu aussi tamit ñoo ngi ko ciy sant di ko ci gërëm ndax du force dimbali nit du force ko neexoon mu bañ ko def mais gis nañ saa bu ñu defee appel ci moom rek day génn ñoo ngi koy beral nuyoo di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal fépp fu mu bëgg a dem rek yàlla na fa yàlla suñu borom yeggale. waaw ñu ngi nuyu ñëpp nag di nuyu mbokku amateur yëpp ak képp ki nga xam ne ne maanaam day suivre chaîne bi Equivox ndeysaan yow ndaanaan nga foo dem rek da ngay intégré wu parce que xam naa la intérieurement yàgg naa laa xam. mais fii nag danoo am benn réunion général bi nga xam ne dafa coïncider ak anniversaire Bara Fass raison pour laquelle que ñëpp wuy si ma ñu defar ay añ yu baax ndeysaan di dalal gaa yëpp samay nit ñëw fii ah kon générateur daal du ay foo du ay caaxaan. du ay caaxaan daal. Mm. kon daal tey lool moo waraloon daje bi fii daal. voilà lool moo waraloon daje bi ñu waxtaan suñu biir certains points yi nga xam ne ne ay réeróo yu amoon suñu biir parce que soo xoolee générateur dafa doon benn structure bi nga xam ne danoo dem ba doon famille. ku xewlee ñu demalante di dimbalante suñu biir cotisation yu ñuy wax yëpp c'est juste du social dimbale am ay projet am nañ ay projets yi nga xam ne mi ngi en cours yi nga xam ne mooy cité des jeunes amateurs ki képp amateur war faa am kër ñu bokk koñ lépp loolu lépp le ministre projet yi mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy étudier te yaa voilà yaakaar naa ne joxoon nañu rendez-vous mais Covid bi moo moo moo taxoon mais ñun suñu activité ñu ngi koy continuer parce que suñu biir group ñu ngi def ay émission ay émission di dalal ay kàngaamu làmb ki nga xam ne man maay def émission bi di dalal ay ay kàngaamu làmb ci biir émission bi muy doon ay émission yu extraordinaire bi nga xam ne ne sax am na ay journaliste wala am na ay animateurs yi nga xam ne sax copier nañ émission boobu te lool dañ koy sante yàlla avancement la waaw kontaan ci yow non kontaan trop vraiment di di di ñaanal ñëpp sama tante suñu kër fii nii waaw nga xam ne sama yaay ndeysaan ajaratu Khoudia Thiam ak sama grande sœur nga xam ne ne mooy soxna Issa Saw waaw sama grande sœur di ñaanal sama yaay nag ak sama papa ndeysaan dafa xaw a jagati di ko ñaanal mu bon rétablissement di ñaanal képp ki nga xam ne ne xàmmee nga Bara Fass rek gis nga ko rek maa ngi lay wax merci te di waxee amin ci ñaan yëpp yàlla na jàmm yàgg ba tey góor baax na jigéen baax na olof a ko wax jeune amateur am na ay góor waaye am na ay jigéen ma ciy nuyu maam jaar bu ngel jon bu tafaatin awa wan ak siga mi moom itam defe naa gi fekkoon nañ ko kere si réunion bi wala mu nga foon siga maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar Babacar di ziar waa jeune amateur yëpp rawatina soxya yu fa nekk suñu yaay awa wan suñ ko nuyoo mel na ni nuyu nañ ñëpp rôle ci biir jeune amateur wala rôle jigéen ci biir jeune lan la waaw man maa ngi fa nekk en tant que adjoint Modou Baye Fall. adjoint adjoint ci lan ci trésorier wala ci secrétariat wala. commissaire au compte. waaw. kon yaa ngi Modou Baye Fall nekk ci wàllum côté boobu. waaw wàllu wàllu xaalisu euh, jeune amateur.